mbaa li ci waañ bi xeeñ na leen wala xeeñu leen ñi sant sekk moom duñu lekk. non man gaa man gaa waañ bi dafa am lu fa ne. ah Soumaré danga sant xaw ma ah. nag man fi amul sakal mais xam naa ne sekkeen duñu lekk. man daal mais ñi sant ay Guèye. ah sama kal am na sama kal ak jaw am na sama kal sama kal moom ma nga ca marché ba moom marché non ma nga ca dama dama ne woon bu fi nekkoon tey xam nga nekkoon na mu <laughs> ñëw ci kanam tuuti ci li nga xamante ne mooy suñu plat du jour ñu dégusté ko ak oustaz euh, Assane Seck nag mu nekk fi suñu invité Daba Soumaré ma la nuyoo ba pare mhm. waaw ma lay fay soxna li sekk waaye rek di la fàttali ni la oustaz bu ñu ko fi indee tey bëgg a rek lépp lu jëm ci wàllu solidarité mhm. parce que nag olof Ndiaye dafa ni lu defu waxulu ay di njàmbat Euh, te li fi ay fi ne nii ci jamono ji mooy ndimbalante euh, muy inondation yi gars yi sonn nañu askan wi yëpp euh, man mi ngacc naa ba samay épaule commencé métti. <laughs> damay damay inondé da nga inondé. <laughs> donc waa Zac mbaaw yëpp sax ñi ngi koy kaas kapek ñoom tamit ndox mi yem leen ci dënn mm-hmm. xam nga nga dem cité SDV ndox mi ball donc yooyu yëpp euh, douche yeeg yëpp même douche intérieure yi donc yooyu metti na mm-hmm. euh, ñoom tamit ñu ngay yuuxu xaw ma ku leen jaay yooyu terrain wala yan moo leen xoolal foofu mm-hmm. ba nga xamante ni yooyu moo di tabax ñu ko tabax mu doy waar lool waaye nag yàlla na leen ci yàlla génneeg jàmm képp ku ci nekk rek yàlla saafara ko euh, ba indil la saafara soo xamante ni lu kawe ak njort tey nag ñoo fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllu ndimbalante diggante euh, gis nag am na ñaari chaîne de télévision yu koy def ñu rafetlu ko lool rafetlu ko lool tey di leen encouragé xel mi leen yàlla may ba ñu dugg ci ba di ko def yàlla na leen ci yàlla may ndam euh, waaye rek ñu indi fi oustaz euh, tey ji gannaaw bu nuyoo ba pare oustaz ma laaj la lan mooy solidarité <coughs> alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdalil mursalin sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin soxna daba ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may wér ak tal ak fekke ba ñu mën a teew fii ci 2STV ñu ngi nuyu waa 2STV yi yëpp di la di jiital ci nuyu bi borom kër gi di la nuyu di nuyu soxna Fifi mhm. di lu émission bi wax dëgg yàlla ni mu koy doxale waaye itam di nuyu mbooleem téléspectateur 2STV di nekk Sénégal ak bitim réew mhm. comme ni nga ko waxee soxna Daba lu xew di waxu lu ay di njàmbat ndaxte ku ne xam na li fi jaar mhm. ak mettit bi nga xamante ni metti na ko waaye itam ak impact du ma ne négatif mhm. waaye bu doy waar bi nga xamante ni def na ko ci population bi ak ni nga xamante ni moom mooy seen wàllu nekkin mhm. ak seen wàllu dundin ba tax na fàww li nga xamante ni moom mooy dimbalante moom mooy solidarité daal di jóg ndax nattu ku mu wàcc sa kaw rek foog nga am koo xamante ni moo lay taxaw waaye itam foog nga soxlaa koo xamante ni moo lay dimbali. ngir nattu bi mën a oyof si yow. même bu dañul à cent pour cent mais am. loo xamante pour pourcentage boo xam ne dina ci teggeeku dina si wàññeeku. solidarité nag booy xool lépp loo xamante ni diine la mu bàyyeekoo ci subhanahu wa taala rek daf ko digle mu bàyyeekoo si borom bi. rawatina diine bi nga xamante ni moom mooy diine yi. l'islam diine solidarité la ndax yàlla subhaanahu wa taala moom moo njëkk a tudde boppam le solidaire maanaam ki nga xamante ni day dimbaliwaate boo demee ci ay turam yi nga xamante ni moom mooy les ces quatre-vingt-dix-neuf noms bokk na ci almuin maanaam ki nga xamante ni moom mooy dimbaliwaate boo demee si faatixa ba tey di si fekk iyaaka na'budu wa iyaaka nastain yow yàlla yow la ñuy jaamu waaye itam si yow la ñuy sàkku ndimbal ku ñu jàppale ku ñu teggil li nga xamante ni moom mooy suñuy tiis mhm. waaye itam daf ko tudde boppam ba pare nag santañu ko mm. boo demee ci taal saar bi nga xam ne moom mooy suratul maida mhm. ñu di ko wax la table à manger mhm. nga yéen yi ngir ñoom la yalla mu ngi fay wax naan wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan mu ne na ngeen dimbalante ci def lu baax waaye itam na ngeen dimbalante teg ko ci li nga xamante ni moom mooy ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci ak noonoo ak li nga xamante ni moom mooy bàkkaar kon ñu xam ne dimbalante man na am si ragal yàlla ak def lu baax waaye itam ndekete nit ki dina dimbali waaye dimbal ba fekk am na leneen la nga xamante ni moom moo si laxasu lu bokkul ak ak mbaax ak lu bokkul ak li nga xamante ni moom mooy jàmm yàlla mais oustaz ba tey ci wàllu dimbalante ma lay laaj ndax euh, am nañ fi benn élément nañ ko seetaan dellu si waat ñu doog a yokkal suñu suñu waxtaan mhm. su paree école Asecna fii ci Guédiawaye ay njaboot ñoo daw làqu si fii ginnaaw ndox mi nangu seeni kër classe yi lañuy soppi ay néeg togg fóot ay jéego bés bu nekk wante fii sori lool seeni ay kër. suñu kër moo fees ndox de waa lu moo léegi depuis taw bi commencé daal kër bi da fees ndox néeg yi di ball ñuy ŋàcc rek nag di ŋàcc rek ba démb nag taw démb bi nag. taw démb bi ñëwee nag eh, mu daal di fees dell mënatuñ faa tëdd eh. matelas yeeg yëpp mu tëmb ci biir ndox mi ak gis nga suñu yére yëpp a tooy njabootu Tamboura kom yeneen ñoo fi teew ñëpp fukki njabootu tey bokk juróom benn salle de classe anam yi nekki nii xaw a jafe lool tax ndimbal bu nekk dañ koy rafetlu yal na la yàlla taxaw ñu taxaw yal na la ko yàlla taxaw yàlla mi tax ngay def yal na la yàlla yëpp barke ñu ñëw fekk fi nit ñi gis ñu sonn ñu ne donc fii lañ war a def ndimbal bi ñuy woo ñu tibit pour ñu jóg pour ñëw dem sur le terrain pour indi ndimbal bi sur le terrain parce que population bi sonn nañ nit ñi soxla nañ ko te ñuy wax état lépp lu mu doon def benn na fexe mu def fukk. école bi pare ren moo war a ubbi ci weeru octobre fi mu nekk nag amul toilette lu nu mel tax ñi fi si amal jéego ndimbal ne dañu si taxaw ngir mën ko daal di saafara. école baa ngi nii amul courant amul ay suturlukaay euh, yooyu bari na donc dañuy wax aussi état bi ñu xam ne kat ñiit ñi nekk bu ñu leen jëlee ci ndox mi du ne rek xusatuñ ci ndox waaye am na leneen le minimum bi ñu war a mën a am donc dañuy interpellé ñu dimbali leen ci ay toilettes. voilà euh, ci wàllu ndimbal googu laa bëgg a wax est-ce que ndimbal dañuy xaar ba musiba ñëw mm-hmm. wala loo xamante ni nattu yàlla la mm-hmm. euh, ngay soog a dimbali doomu aadama est-ce que du doon lu pérenne loo xamante ni war nañ di ko sóoraale mm-hmm. di dimbali doomu aadama yi di dimbali askan wi xam nga soxna Daba boo jëlee ndimbal moom boo xoolee borom xam-xam yi dafa am noo xamante moom lañ ko séddalee muy juróomi pàcc bu njëkk bi ndimbali il faut mu nekk ngir yàlla beneen bi si topp mooy nga jox ko ki nga xamante ni wala nga dimbali ki nga xamante ni moo nekk dans le besoin. Mhm. beneen bi mooy li ngay joxe mu nekk loo xamante ni yow li nga gën a bëgg la maanaam lu baax. Mhm. beneen bi mooy nga xam ne li ngay joxe yàlla moo la jox pour nga dimbali am ñu mu teg nattu te pourtant manoon na la teg nattu boobu. tegu la ko bàyyi la fi am ñeneen ñu ma ko teg am na lu tax donc beneen bi nga xamante moo si mujj mooy booy joxe aussi joxin bi nekk ci anam boo xamante ni bu rafet la nekk ci anam boo xamante nii bu ñu gërëm la waaye ndax dañuy xaar ba béy way mbuus wala ba jàndam ñu toppa ci watatu yu dóor lislaam loolu gënalu ko bu amee baax na waaye itam li gën moom mooy ñu fexe xoddi ko balaa ngaa lakkale comme ni ñu koy waxe di ko wax alwiqayatu xayrun min al ilaj mieux vaut prévenir enfants maanaam dem bu nga xamee ne nawet mu ngi ñëw ñu xam ne am na ñoo xam ne kat ñu ngi dëkk ci ay zones yoo xamante ni qui sont inondables mm-hmm. nañ jóg ñu dem dimbali leen moo xam dañ leen di sëkkal buñ ko mënul moo xam dañ leen di toxal moo xam ndimbali dafay jiitu nga xam ne bu ñëwee même buñ mënul fànq musiba bi sax mhm. nga xam ne dégâts yi nga xamante ni moom la naroon def mhm. dana wàññi ko mhm. loolu ba demee si alquran di nga fekk yàlla subhanahu wa taala di ko wax si ay aaya yu baree baree baree bëri si dimbalante kon nit ñi nañuy bàyyi xel si loolu du ñu xaar ba nit ki toll si diggante boo xamante ni maara day taali comme ni ñu seetaan léegi si élément dem ba xajatuñu seen ay kër ñu jël leen yóbbu leen si école yi baax na alhamdulilah mais mënoon na bañ a demee noonu. dëgg la ndax fañ dëkk. xam nañ ne ay zone la yoo xamante ni day taa mhm. day inondé mbënd mi bu ñëwee daf koy yàq mhm. nañ leen fa jéem a jëlee avant dimbali aussi bu fekkente ne mën nañ leen dimbali utal leen yeneen logement mhm. comme ni mu xewee si jamono ku nekk ngi may terrain baax na sant yàlla ku nekk ngi may leneen mais beneen yoon ñu teel ko def yaakaar naa ne moom moo doon ëpp solo que ñu bàyyi ba ñu toll si jamono bi parce que fi mu nekk nii ñëpp a ko soxla man damay seetaan télé yi yàq bàyyiwul fenn Sénégal gépp la la mais suñ Assane xam nga lu tax mhm. euh, bu ñu nee dakaar fili mhm. Cap Vert la tuddoon mhm. xam nga Cap Vert mooy lan ci sama njàng mu gàtt euh, palaasu ndox ak ay garab ndox ak ay garab moo doonoon Ndakaaru Njaay donc bu ñu demee ba ba di fa dëkk waroon nañ ko saytuwaat parce que place yooyu waroon nañ ko faa mën a baax euh, te it comme ni mu ko waxee gis nga ndimbal li di nga gis ko joxe trent million am na ñoo xamante ni dañoo dem sur place dimbali ñooñu ci ay xaalis ci ay moyens dëgg la neex na. dina leen permettre peut-être que ñu suqali ko pour une journée deux. mais li ngay am mu ma million millions wala 40 millions demal ca foofa nga fekk fa ñoo xamante ni ñi nga ca mbënd ma mais 40 millions mën na ñaari kër nga jël ñaari famille dugal ca boo demee ci état mu xam ne ci mbënd mi la jëm peut-être que terrain ba du cher xëy na dina yomb idée la nga war a mën a jël mais comme ni ñu koy dajale nii xaalis bi damay ragal la leen daloon ca plan jaxaay dalaat leen parce que plan jaxaay ba léegi nit ñaa ngi ca mbënd ma comme nii nga ko gisee et pourtant dagg nañ fi ay këri këri këri kër ni plan jaxaay am na nag yu ñu ci dégg yoo xamante ni neexuñu bu doon suñu sago ñekk ko moom yelloo ko ñu ñu utiliser ko ñu jox leen ko mais dafa am nu muy demee Euh, ñaareel ba tamit euh, comme ni ñu rafetloo télé yi niñ ko niñ ko defee nii tey mm-hmm. euh, mais dafa am liggéey boo xamante ni état la war fi ngi mm-hmm. état la war dëgg la naam ñi ngi dajale mais ñoom naka la ñuy organiser wu après ba ñu jot ca te ñëpp it jot ca xam nga 450 milliards yi état wax ni tey jii def na lu rafet moom Macky sàll bi mu supprimer Sénat ñu kontaan ci lool mm-hmm. parce que xaalis boobu mu ngi ko bëgg dugal ci mbënd mi alhamdulilah mais niñ ko déggee ci information dakaar lay yem mais Touba bënn le nañu de hmm. Mbàkke am nañu Jurbel am nañu Thiès am nañu partout foo dem Tamba Matam yaa ngi leen di dégg mais est-ce que loolu rek dina doy est-ce que ñooñu aussi duñu leen xalaat xam nga fii sax am na assainissement boo xamante ne dañ naan xëy na baax na ak baaxul nañ ko defaraat mais région yooyu amuñu plan d'assainissement